comme man Ousseynou Diop laa tudd auto école Daaru Khoudoss ñu ngi Pikine marché Zinc boutique immeuble vert vert blanc bi boutique Sëñ Babacar si fan lañ nekk ah. fii moom jafewul à chaque fois su fekkee da nga jugee tali bu mag bon premier centre commercial Batora boo ko dépassé même pas 50 mètres. di nga gis euh, boutique Serigne Babacar Sy bi ñu affiché photo Serigne Babacar Sy bi. ñu affiché photo Serigne Babacar Sy bi foofu moo nekk euh, auto école bi auto école bi ñu ngi si kaw ah en quatrième quatrième lañu nekk si kaw. metti na trop sax élèves yi à chaque fois loolu nañuy kaas élèves bu fi ñëw danaan quatrième euh, tamit tamit dawal tamit foog nga apte si yooyu surtout côté sportif. foog nga foog nga apte si si sportif parce que dawal tamit. doko ko def di feebar dafa laaj sport tuuti <laughs> ah parfois bu fekkee da ngay def long voyage long voyage da nga war a am sport waroo gaaw nelaw comprendre nga am lucidité loolu tamit dawal loolu yëpp dasee war a am ana fii bu nit ñëwee incha allah rabbi dañ lay accueillir nga ñëw si bureau bi ñu jox la formalité yi bon formalité yi boo si d'accord ñu entamer cours yi commencé ko comprendre mais nag code de la route bi nañ njëkk a commencé parce que code de la route mom moy communiquer élève mom lay communiquer que boy dawal mom ngay communiquer ci kaw talé bi code de la route ngay communiquer do fa nek di génné sa loxo wala ngay génné sa bop di wax signes rek ñoo lay permettre ngay xam fi dama fay wara jadd fi fii waruma fay jadd wa dafa am lu muy wax yoy mooy marquage au sol waaw moy yi ñuy dessiner ci souf su fekkee dañ koy wax ci olof moy affaire yi ñuy dessiner ci talé bi ci souf comme parfois su fekkee dafa nek ligne continue droite ligne continue droite si digg tali bi circulation yi auto yi dem ak yi comprendre nga dans ce cas fofu yow un droit doubler waaw si fil rek nga wara vous avez droit doubler comprendre nga su fekkee da nga dem ba mu commencé def ligne discontinue moy ligne bu dag dag bi dans ce cas vous am nga droit dépasser. waaw am nga droit dépassé ay signe rek la su un dama à a Vous avez damay droit affaire bi crédit bi lay à suuf clignoter avez droit lay comprendre nga damay clignoter ci suuf affaire bi clignoter côté gos su fekkee damay côté droite laa jëm damay yéegal affaire bi mu dem mu dem jarul tàllal loxo jarul tàllal loxo wala su fekkee tamit dama bëgg euh, ku nekk sama kanam may ma dama koy def cote phare cote phare crête boobu ma defee gos ak droite moom laay dama koy yëngal nii rek comprendre bu ko defee lamp yi day tàkk bon loolu moo andi erreur bi tey au Sénégal indiscipline bi ku la neex loo neex dawee fu la neex l'olmoi fu la neex neex andi indiscipline bi au Sénégal. auto école si lolo. comme a di def formation même sax soo mënee dawal ñu andi la nga def formation parce que code de la route moom mooy base dawal beaucoup ko mënul indiscipline day feeñ si kaw tali bi mun nga mun dawal mën dawal mën dawal mais soo mënul code de la route. utiliser code de la route rek tubaab bi tey boo gisee seen dëkk yi am accident foo dem day am accident mais ñoom code mais ñoom code de la route n'est utiliser à chaque fois code de la route dañ koy dañ koy appliquer bu baax a baax parce que dëkk tubaab bi sax pour am fa permis yombul pour am fa permis yombul. non non non non loolu moom loolu moom duma ko wax parce que ñun à chaque fois ñun fii dañuy former élèves yi. waaw fii moom dañuy former. déedéet déedéet kenn du la jox permis dañ lay former code former. soo jàllee soo jàllee da ngay toog un mois ñu former la si conduite bi pour mun la def nga dem examen conduite su fekkee euh, pour dem un soo jàllul dañ lay programmer waat. un mois da ngay toogaat un mois ñu programme waat la nga dem examen code. non un mois boobu ñun à chaque fois fii un mois boobu noonu dañ lay cumuler affaire yi fekk jàngoon nga code ba pare dañ lay cumuler conduite bi ak di la jàngaleel code bi yooyu dañ lay booleel quoi un mois yooyu. sax fépp la nag clandestin bi fépp la au Sénégal Sénégal moom organisation nañ war a def surtout code de la route dañ see war a état da see war a jàpp ñu def si organisation bu nga xamante ne organisation bu strict lay doon ñuy am permis jaar ko si yoon bi. comprendre nga mais suñu ko jaaroo si yoon bi rek talib day bëri. maa ne ni yomb na jafe na lu tax su fekkee jàng ko day yomb si yow parce que parfois nga am élève bu nga xam ne day neexal day ñëw fii nga jàngal ko ah même par deux semaines mu mën yëpp mu mun ko nga nga dem moom beneen deux semaines bi si code bi un mois yi mu appliqué yëpp nga programmer ko mu dem jàll def benn une faute wala deux fautes am na ñoo xamante ni moom jànguñu français ñooñu oral nañ leen di def ñooñ oral nañ leen defal di leen ko tekkil si olof. waaw dina jafe mais ñun am nañ ay méthodes yu nga xamante ni dinañ la si dinañ la si kii waaw dinañ la si jàppale waaw. waaw surtout illettrés yi dafa bari dafa bari mais am nañ ay méthodes yu nga xamante ni comme ñuy comme panneau de danger bi ñu ne panneau de danger virage à fii virage à droite la si français léegi ñu ne la fii pan lii panneau de danger la bu nga xam virage bu nga xam ne sa côté droite la commencé noonu ñu la koy jàngalee. waaw boo ñëwee ba foofu da ngay wàññi parce que à chaque fois danger moom saa yoo ko gisee si biir dëkk bi dalay annoncer annoncé ne ni am na danger si kanam. à cinquante mètres comprendre nga pour nga mën a wàññi rétrogradé wàññi sa vitesse vitesse bi oto bi di daw parce que xam nga am na danger sa kanam panneau bi wan na la ni day am danger sa kanam nga wàññi vitesse bu nga doon daw danga ko xam ko parce que tamit boo ko jàngul tamit comme tey dans une virage xamoo ni ñu wan leen fii virage à droite la xam foofu waroo fa duble léegi yow boo jàngul ko de la route nga ñëw si virage di doubler te xamoo luy ñëw sa kanam day jur jéyee looloo bëri si dëkk bi nañ koy jànguwaay man lan laa leen jàllale

commencé dabal incident yi bëri lool mo koy andi. waaw lool lool mooy lool mooy andi incident bi comme lu nga wax si côté magal bi ak kii chauffeur dañ dul noppaliku parce que tamit ni tamit chauffeur yi tamit dañ dul noppaliku ni tamit su fekkee da nga bëgg xaalis comprendre nga bëgg def 5 voyages wala 3 voyages wala 6 voyages si benn journée loolu nit mënu ko nit mënu ko xam nga nit boo dawee benn une heure de temps rek war nga taxaw noppaliku war nga taxaw noppaliku jël café noppaliku

école am auto école amna association mais association bi bon ñu gis ah, ñu nekk bon lutax parce que tamit <laughs> affaire yi parce que affaire yi fi Nous doole rek ñu Nous gis parce que ñun ni ay jeune nañ ay jeunes dañoo di euh, patron bi suñu patron bi ñun ñëpp de la route après def ay détachement ku nekk mu jox la nga comprendre kooku moom ça va quoi ñu ngi koy ñu ngi koy remercier mention mention spéciale moom lu ñu bëgg da ciy taxaw waaw. non du ma ne ay mbuxum parce que Sénégal moom foo dem am na loolu Sénégal moom foo dem am na loolu grand Sénégal moom foo dem am na loolu mais ñun moom yooyu moom nekk ñu si quoi. waaw au fait euh, kii boobu organisation boobu gars yi war nañ ko xoolaat tamit surtout association bi war nañ xoolaat organisation boobu parce que tamit léegi école yi dañoo jege de trop. dañoo jege trop parfois da gis nit ku nga xamante ni du am agrément sax tijji parce que boo amul agrément waaw référence bi dafa war a am nga war a am nga am référence bi comme fii suñu référence bi 0 0 54 la. référence waaw mooy numéro agrément loolu ba nga ko war a am tijji mais boo ñëwee rek def auto école commencé di former amoo agrément loolu tamit c'est juste une erreur quoi loolu mooy état tamit war na see taxaw jàppale si bu baax mu bañ a am anarchie quoi. sinon rek day andi anarchie. ak euh, grand association bi bon pour ma jege leen jegewoo ma leen de trop quoi euh inshallah rabi dina len fexé tout jege xam nga këyit yenn information yi pour euh, ñu ki quoi ñu xol nu ñuy doxalee parce que tamit dafa jot ñu defar éducation code de la route code de la route ñu defar ko bu baaxa baax. parce que Sénégal <laughs> lu fi xew day na war fu neex way stationné fu neex way taxaw fu neex way doubler loolu c'est trop c'est trop question bobu neex ma surtout jigéen xanaa xamoo jigéen ñoo dàq dawal góor ñi parce que amuñu fit ku ragal waaw prudence. ñoom waaw mooy ku ragal comprendre nga ñoom dañoo am prudent dañoo dañoo dañoo dañoo prudent jigéen ñi. déedéet du loolu xamul tax xamul tax tey boo defoon statistique si euh, la si accident yu am au Sénégal góor ñooy ëpp jigéen ñi góor ñooy ëpp jigéen ñoom jàngal dañ koy appliquer comme loolu lañ jàngale ci code de la route bu ñu ko mënee dañ koy appliquer par rapport ak góor ñi góor ñi moom duñ def sax bu ñu bu ñu amee permis sax duñ def débutant. c'est normal nga def ko bu amee permis mais jigéen ñi ay di nga xool ci tali bi à chaque fois jigéen ñi ngay gis ñu bind débutante seen ginnaaw mais góor luñ bind duñ bind débutante. du gàcce da nga war a bind débutante gaa yi ñëpp xam ne yow yaa ngi soo commencé dawal bu ko defee sécurité bi noonu la après nit ñi. dalee bàyyi xel mais nag la plupart nag. yenn chauffeurs yi nañ ma baal quoi nekkul pour xeebel la woo tax moo wax leen ko gars yi bëri mun ñoo liir loolu mooy problème bi. te jàng ñu bëri mënuñoo liir duñ xam ne kii débutante la day jàng xamuñu lu mu bind ci kii bi loolu mooy problème bi moo tax parfois dañuy gis nit di jàng ci kaw tali bi ñu koy stop di ko corner di ko corner ba mu afale ba def beneen affaire. auparavant sax maa ngi dégg fii nii ci pont bi amoon na benn euh, jigéen gars yi dañu ko doon corner corner ba dafa mujjee def accident. si corniche waa waaw dafa tiitoon dégg naa dafa tiit loolu tamit war nañ ko xoolaat xam nga au moins sax au au moins sax yow mii di dawal nga mën a lire. boo jàngul sax nga mën a lire quoi xam tuuti si affaire yi waaw lu mu wax loolu dafa baax quoi si kii incha allah. waaw mhm. ah, tey bu ñu doon jàppale tey bu doon jàppale mu jàppale ñu si côté instrument quoi si côté oto. si côté euh, bon man état la laa gis luy solution bi comme ñu nga xamante ni seen oto dafa màgget bu ñu jàppalee ñu am au moins benn somme bu nga xamante ni war nañ ko moo doon dugal ñu nte mu jox leen oto yoo nga xamante ni xam nga c'est confortable bu nga xamante ni dinañ ko dinañ si mën a liggéey mais tamit oto tamit su fekkee tamit mën nañ see ñu ngi si oto bi yëpp na état bi yëpp baax na ba pare tali baaxul bul sonn oto bi day day yàquwaat.

su vous avez système bu nga day xat Dakar dafa xat système comme tay comme suñ lundi mardi mercredi lundi lundi mardi deux jours yoy auto yi paire ñoy daw auto yi nga chiffre dafa paire daw mercredi jeudi auto yi nga chiffre dafa impair ñoy daw ñu organiser ko ñu organiser ko connexion bu parce que léegi connexion léegi monde avant avancé Sénégal On nañ ko def war nañ ko mais fibre fibre a fi ñu fibre mais organisation au moins su fekkee sax ku mën def ngeen mën def 500 francs sax bu ñuy def si taxe bi xam nga ku nekk nit ku nekk 500 francs si taxe bi un mois mois bu nekk affaire yooyu ñu jël affaire bi boole ko si tas ko si dugalaale ko si yokk budget bi quoi comprendre loolu war na mën a war na mën a nekk. oto école bi mi ngi nekk euh, marsa zinga ah marché Zinc la nekk boutique Serigne Babacar Sy ah. su fekkee da nga jógee tali bu mag boo dépassé à cinq cent mètres euh, centre commercial Batora ou bien centre commercial modoufal à droite à gauche la lay féete ah ñu ngi si kaw à quatrième fa nañ nekk ah haute école Daaru Khoudous. waaw c' est ça c' est ça chauffeur dañoo am waaw chauffeur yi moom am nañu waaw chauffeur yi tamit war nañ di entraîner xam nga am lucidité. dawal boo koy def la nga war a am lucidité waroo jël benn extant waroo tux yenn affaires yi wala nga naan yenn ñu baal ma si affaire nga naan alcool wala nga tux yàmba ba pare bëgg di dawal xam nga loolu mënul nekk comprendre yooyu yëpp ñu sóoraale ko parce que parfois nit ay bakkan nga yeb yeboo xar wala nga yeb ay xar sax boo yebee da nga ko war a teg si yoon ba yóbbu leen fu leen yóbbu su fekkee da ngay def loolu nga bàyyi ba egg sa kër nga def ko comprendre nga mais nekkul kantaa da ngay yëg si kaw oto bi di ko def loolu baaxul loolu yëpp Nous avons appelé à la barre. Nous ne pouvons pas faire un formalité, comme vous faites, le paiement est 130 000. 130 000, il y a une formation. Il y a beaucoup même prix. que le permis est 160 000. Ce qui que le permis est léger, 130 000. 860 000. Ça dépend si vous avez beaucoup de temps. Ce qui fait que vous avez un bon professionnel, bon professionnel nga mën nga jël euh, permis léger nga dawal ko su fekkee yow nga bëgg tey dans les grandes entreprises yu nga xamante ay machines lourdes nañuy utiliser su boobaa mën nga def permis poids lourd permis poids lourd moom mën nga dawal léger mën nga dawal lourd avant am avantage am na transport transport transport ñuy dawal taxi tata puis dawal taxi super tata ñoom ñëpp transport ba mooy BCDE. waa transport bi day fekk nga am permis ba pare. beneen système bi la day fekk nga am permis ba pare ba pare boo amee permis ba pare def un an comme tey nga amoon permis poids léger def un an su boobaa mun nga def mun na leen mun nga ñëw def passé waat transport ci transport boobu su boobaa quatre-vingt-dix mille lañ koy defe xam su boobaa yow mën nga code de la route mën nga lépp ba moom quatre-vingt-dix mille lañ koy defee. permis AB nañuy def. les 90 permettent à permis AB nii daf may jóge waaw dox say soxla ñëwoon mooy permis poids léger boobu poids da ngay poids am dépassé wul 3,5 tonnes oto boo xam poids am dépassé wul 3,5 tonnes moom ngay dawal. waaw jeex ak 4 4 waaw yooyu bon 130 000 ça dépend ça dépend si kii bi ni si euh, si formation bi ak yow. ak nit bi capacité comprendre nga suñ la jàngalee de la route. code de la route bi suñu la ko jàngalee deux semaines nga mun ko dañ lay programmer nga dem suñu la programmer comme tey la ñaata tey la 27 programmer nañ la 27 dem nga examen boo demee examen boo jàllee comprendre nga vingt 27 bii di ñëwaat nañ lay mun a programmer nga dem examen nga dem examen conduite comprendre comme su boobaa loolu ñaata ñaata mois lay diire deux deux deux mois lay diire mun na nekk deux mois. l'essentiel l'essentiel. mënuñu la defal lépp ba nga impact loolu moom mënuñu mais dañ lay jàngal technique bi nu ngay defee nu ngay nu ngay ñu jàngal la comprendre nga l' daal dinañ la école dinañ jox dinañ jox des koy yaa koy sa ak prudence bu école jàngal ngay égaler sa bopp parce que ñu tamit loo nekk rek min ko ngay nekk def nank nank nga nga def nank nank dépasser yenn vitesse 15 next si un mois wala un mois 15 jours pour dëgër su boba da commencé dem sa bopp foo bëgg dem non grand <laughs> loolu le grand day metti sama xol vous nit di parce que vous dafa dangereux parfois il sax parfois da ngay sax nit la rek wala ma rek parce que fa ngay dañ la hôpital, fa tala parce que léegi sax oto yi ñooy moytu ñooy moytu ndax loolu oto yi ñooy moytu doomu aadama yi moo des fépp moo des fépp loolu moom war nañ ko organiser kenn du jéggi fu nga war a jéggi loolu baax ñëw si arab bi nga dem taxaw fa waaw loolu organisation état kase la organisation moom moo tax état dafa war a def détachement des mairies su ko defee waa mairie bi gérer loolu comme fekkee fii ban mairie la mairie Pikine mairie Pikine noor waa mairie Pikine Nord ñoo war a organiser loolu ut ay ay volonté yu nga xamanteni ñom dinañ organiser lolu ku nekk di taxaw sa arrêt ku taxaw sa arrêt ñu dagg la impôt jël sa jël sa numéro sasi si dagg la impôt léegi suñu la impôt su boba impôt boobu ñu lay mu dugg ci keesu. non duma ne ñàkk yar sax parce que ñun eggaguñu foofu comme sang lu nga waxon su fekkon amon nañ connexion bu doy su fekkon amon nañ connexion bu doy su boba ku nekk dinañ ko mëna situer fu mu nekk ku nek bu defé ben infraction dañ xam li sa numéro ki la ñu situé le fu nga nek nga fay impôt direct wala ñu dagg la wala ñu wàññi la ay points mais ñu instant mom tolo tollaguñu fofu mom sincèrement à point mom bon eggaguñu d'accord na sax mais eggaguñu foofu waaw bu jitu bob ba pare après ñu soog a dugg étape permis à point su boobaa am dañ koy organiser organiser ko comme mu tay Pikine Nord organiser sen permis à point benen gox tamit organiser sen permis à point ñu dagg ko ku nekk su boobaa am benn poste bu nga xamante ni poste informatique la ñom ñoy gérer affaire bobu non comprendre ok waaw fii ñu ngi fii auto école euh, daru Xudoos mi ngi Pikine waa Pikine nag nañuy ñëw ah surtout marché Zing alentour bi Pikine Nord ñoom ñëpp ñu leen di souhaité ñu ñëw fii si auto école bi tarif yi amul problème boo ñëwee fii formation bi dinañ la jàngal dinañ la teg si yoon ba nga am sa permis accompagner la bu baax a baax a baax waa Pikine yëpp ñu leen di souhaité ñu ñëw fii di jàngee alentour bi yëpp ñëw leen fii fii mooy Daaru Khodos ku fi ñëw di nga am permis ñëw leen fii ñu jàng si ngeen jàng si jàng code de la route jàng dawal mm, parce que oto parce que permis nécessité la permis nécessité la ku nekk war nga mën a am permis yor sa oto foo bëgg a dem dem fa léegi suñu numéro téléphone soo ñu bëggee jot mooy 77 575 11 90 77 575 11 90 inshallah